عليه خير صلوات الله ما دام من متى ما يكن كل يكني يا من يكمن من لن تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكون الدهور في المؤمنين يا ولي يا سكهور يقود لي كن فيكون عاجي من قبل عيت ولا تنجي نفيد إبليس من خير أبدا في سارسا فكل من لم يقبضه وجهي لمن قد آمنوا وأسلنوا وأسنوا مخجل من لم يسمه قبل أمة النبي صلى عليه بي تسليم رب جل إجابة تساسع الأخداه إلى سواه سرمدا وده نافع يا كريم يا مؤمن يستجب وليلسه يؤمن عبيد زومة خير مرسلين عنه لسين كفر برسلين قل يوم نصرا أسيس آجلا وبصرا ماجلا وآجلا كل سوي الإيمان ما يسيد حبك يا من عنده مسيد أعني سوي الإيمان ما يسيد حبك يا من عنده مسيد أعني سوي الإسلام أن ركوني إلهي داك وأن سكونه على نبي ورسول للمنتعن صل وسلم يا مبيد من جهن للمنتخى والآل وصحب الكرام أوصل سلامك وجد لي بالمرام يا من له أنو كما له نبور يا مهنيا أخنيتني أن الدمين ناجيتك اليوم وفي راجيا ولي خليت دون ساكن عاجها أو لأمة النبي أحمدا مسليا عليه بمن هم لا نصرا عسيسا يسمل الكبار ما سخار لهم من بارا سمي العزيز والفروق أسى الكتاب عنه لسين امضله من المقام رابع تربى للكتاب والفروه ما لا دس سايا صابرو أهديتني جميع دون سلبي ولتقود سوء وقت طلبه لهوز الذي أريد وانفعي بيا الورى يا مغنيا عن مدفعي ما أوتخس دربي بالمنتخى وقتلي معها ودعو صوتها وجادلي ما لا يسال أجبا في أبد لساني لن نجبا مدد لي مدد من لا يخفى عليه سير جتني بالأخفى السلام عليكم ورحمة الله jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou di Serigne Saliou mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla mi nga xamante ni moo fi nekkoon ba fi kenn nekkul te bu fi jógee yàlla moom képp moo fi des yàlla moom moo ñu may kàttan may ñu wér binduñu def ñu ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba sëriñ Saliou tey ñaan yàlla Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàgg fi lool te ànd wér di nuyu kilifa jotaay bi sunu Serigne sunu wasila Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou ñaan yàlla sunu borom guddal fanam wéral ay cëram. te di ko saxal si di ko may ndam si liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey Serigne Saliou di nuyu mboolem kilifa yi nga xamante ni teew nañ si jotaay bi di nuyu bu baax tamit soxnaam su baax siy toog soxna Ndey Faatu mu ngi lay jox sa cër ak sa wàccuwaay bu baax di la ñaanal jàmm ak tawféex ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xamante ni. sunu borom dogal na ñu fekkee jotaay bi di nuyu bu baax waa APEX di leen ñaanal jàmm ak xéewal di sant yàlla bu baax si xaside yi nga xamante ni mbokk taalibe yi yëkkati nañ ko fi tàmbalee si mboolem kuréel yi nga xamante ni jàng nañ fi macha allah xaside yi am na solo lool. njàng mi neex na te sell na te am na solo yàlla na sëriñ Touba dolli leen kàttan eh, yàlla ngeen ci amee ngërëmul Serigne Touba ndax xaside yi ci la Serigne bi def mbootu laa ilaha illallah ndax ilaa tawaalif yi yaqulullahu anwaaru laa ilaha illallah ilaa tawaalif yi yaqulullahu asraar laa ilaha illallah secret laa ilaha illallah Serigne Touba daf koo jël dëxañ ko ci xaside yi leerug laa ilaha illallah moom la sëriñ Touba def si xasida yi loolu nag moo waral ñaare nit bu fekkee dafay jàng xasida xasida yi sell fu mu ko yëgatee rek siru laa ilaha illallah boobu mooy dugg si xol yi yëngal ruu ba kenn dootul ànd ak sagoom mooy waral ñeneen ñi daanoog loolu loolu nag sëriñ bi sunu borom may na ko loolu mu mel ni nag ñu ngi si guddi gu màgg muy guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ni bu amul woon kenn du am ndax ci leeram ci la sunu borom bind lépp luy dund ak lépp luy leer ndax allahu nuru samawaati wal ardi ba mu jeex li muy tegtale rek mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla sunu borom dafa jël ci leeram bind yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw loolu mu jël ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa bind lépp luy dund lu am ruu ak lu amul ruu lépp kon leer googu moo waral jant bi di leer leeru yonent bi ba tey moo tax biddéew yi di leer courant bi nga xamante ni moom nañu am di électricité bi nga xamante ni mooy doxal àddina bi lépp si leer yonent bi sallallahu alayhi wa kon yonent bi ku sunu borom fonk la da ngay dellu si histoire bu sunu borom wooyee malaaka yi ne leen dama bëgg a bind représentant si kaw suuf inni jaamun fil ardi xalifa malaaka yi na ko sunu borom ndax dangay indi ñoo xamante ni bu ñu ñëwee si kaw suuf dañuy tuur deret ak di rayante yàlla ne leen xam naa li ngeen xamul boobu ba sunu borom bindee aadama tàbbal si jëmm aadama leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax malaaka yi sujjooteel leen aadama baatu sujjoot foofu sax dafa am benn taxaw seetlu bu ñu si def ndax léeg-léeg da dégg ñenn ñi di critiquer wàllu sujjoot bu fekkee sunu borom moo bind aadama bind malaaka yi ne malaaka yi sujjoote leen aadama sujjootu luñ ko ngir di ko jaamu waaye su boobu maanaam sujjoot boobu sujjootu wormaal la sujjootu wormaal la ndax ki ñuy sujjootal moo joxe ndigal si ñu sujjootal aadama li tax ñu war koo sujjootal boobu aadama mi ngi ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga xam ni eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko sunu borom def moom dafa doon jëmm joo xamante ni maanaam dafa exceptionnel si ni ñu ko mën a waxee waaw si melo ak si jëmm yonente bi ni ko sol borom bindee bindeew ko kenn moo tax guddi gu màgg gi nga xamante ni mooy guddi yonente bi sallallahu alayhi wa guddi la koo xam ni ni ko Serigne Touba waxee képp koo xamante nii dundal nga guddi gi maanaam boo demee yowmal xiyaam dox doo bokk si ñi nga xamante ni dañ leen di régler waaw boo demee ba yowmal xiyaam yow bi nga xamante ni guddi yonent bi jaraloon woon na la nga ñëw si bâche yu mel nii di fi déglu xasida sëñ Tuubaa yi di fi déglu ñuy waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa teewaay si bis bi dafay am maanaam loo xamante ni daf la ko indil si ay xéewal te xamoo ndax da ngay ñëw ba yowmal xiyaam ñu war laa xisaab ñu ne ah déet ci kat nga xisaab ndax doon na màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñeneen ñi nga xamante ni tam dañoo jël seen ñaq def ko si guddi gi da ngeen xam ni def ngeen lu rëy moo xam sa temps si def moo xam sa alal moo xam lépp loo mën a def ngir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla dundee la maanaam suñu borom dundee la dara yonente boobu nga xam ni mooy sangu lépp lu yàlla bindee mooy sangu mbooleem yonent yi nga xamante ni jot nañ ci jaar moo tax guddeem gii dafa doon guddi goo xamante ni dafa bari ay jàngale ak i jàngat yoo xamante ni nit ñi war nañ ko see def guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko waxee war nañoo wax kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa ak jàngaleem ak mission li ko taxoon jug ndax wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin naziran wa bashiran yërmande la si xeet bi ndax yàlla bu fekkoon yóoyuwul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon tey yi ñun ñi ñëpp ay gens ak i pôle la ñuy ndax kéeféer boobaa moo fi sax ak réera ndax wala si ak wala si arsala rasulahu bil huda wa diinil xaq li yusra ala diinu kulli yi yàlla mooy yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko diiney islam alayhi wa sallam buñ ko waxee war nañoo jàngal nit ñi kan mooy yonente bi sallallahu wa sallam ndax koo xam ni suñu borom moo ko xool ba seppali ko na ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa rafet jikko rafet jikko boobu moom la nit ñi war a jàngat si jëmmam ji xam ni société sax li koy doxal mooy rafet jikko waaw yonent bi kon dafa ñëw ngir mottali jikko yi dafa ñëw defar nit ñi dafa ñëw ngir defar société yi dafa ñëw ngir jubbanti ñi nga xam ne dañoo dëgg génnee ñi nga xamante ni dañoo réer si lëndëmu réer dugal leen si leeru yàlla te mooy diine lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk si ñun war naa am jàngat bu mu def si moom ndax koo xam ni ba muy judd xamoo sa waajur bu góor bu teel a génn àddina waajuram bu jigéen am 6 yonent bi am six ans waajuram bu jigéen daal di génn ay nijaayam ak i maamam nga xam ni kooku képp ku jullit war naa am inspiration si moom yàlla yónni la nga gën ñëpp te teewal yàlla di la teg ay natt bu fekkoon tey ji yàlla dafa def yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon milliardaire kon xeetu yonent bi ku si amul xaalis rek da ngay jàpp bokkoo waaye yonent bi yàlla yónni gën ñëpp di xëy suba lu am soxla mu jox njabootam dépense loolu jàngat la nga xool jëmm jooju si ni ko suñu borom mel si yar ak i teggin nga xam ne ñu bari dugg nañ si diine lislaam li leen ci dugal mooy yaru yonente bi sallallahu alayhi ak mbaaxam ak jikkoom ju rafet yonente boobu nga xamante ni dundam yëpp daf ko passé si jàngal nit ñi anaan nan lañu waroon dundee ba mën a texe ëllëg yow ma xiyam xamal leen ni àdduna kat dund bu gàtt la te nit dafay faatu te bu demee bàmmeel am na lu ko fay fekk yow ma tamit lu am na yow ma xiyam suñu borom dina àtte boole jaam yàlla yonent boobu nga xam ni moom la suñu xeet bi yónni ko nga xamante ni ay jullit lañ ko si ay jullit ndax lislaam du diine boo xamante ni diine bu bees la Isa ibnu Mariam lislaam loo yore woon Nuux Muusa alayhi salaam ñoom ñëpp si diine lislaam yi nekkoon kon lislaam nekkul diine bu bees ndax ñoom ñoom ku si ñëw li ngay wax mooy laa ilaha illallah amul benn buur bu ñu war a jaam si dëgg ku dul yàlla te yonent boobu yàlla yónni si jamono jooju yonent boobu moom la ñu war a topp bu demee nag ba yàlla dogal mission jeex keneen ñëw kii ñëwaat moom la ñuy topp kon lislaam du diine boo xamante ni diine bu bees la diine bu yàgg la mboolem diine yi nga xamante ni mbooloom yonent yi nga xamante ni suñu borom yónni na leen ñu leen yónni la base de l'islam yonent boobu nag nga xam ni moom la suñu borom jox téere bi gën si téere yi te mooy alxuraanul karim suñ tubaab bi wax naan karamanil karimu wala mu karimu waxaale ñu ngi si téere mu karam yàlla suñu borom si borom daf maa teral ñu ne ko nu mu mu ne dafa jël téere bu tedd te mooy alxuraan mi nga xamante ne daf koo jaarale si jëmm ju tedd te moom yàlla moom mi ko yónnee doon ko tedd jël téere jox ma ko man sëñ Tuubaa ma moom ko nga xam ni moom di sëñ Tuubaa moom alxuraanul karim loolu lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa jox la ndax sëriñ bi moom liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am dal karimu an nal xadimu la ko wax yow daal yaay ki tedd ki waaye man daal damay sax rek si dina liggéeyal ala man an ala man alayya wala su sadiha loolu kullu amin hadaaya madiya mboolem temps mboolem léppam rek fu mu nekk rek mi ngi mi ngi takk bi sallallahu alayhi wa dundam yëpp daf koo jeexal moom sëñ Tuubaa si tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadun zinatud dunya wal izzatu wa sëñ Tuubaa wax na ni àdduna bi daal mbooleem li fiy taar ak li fiy rafet ak li daal lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp loo gis muy taar ak muy bànneex ak ak muy rafet loolu yëpp ngi bawoo koo si leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni sëñ bi moom mosuñoo gis maanaam ku bëggee yonente bi noonu ñu wax rek te dëgg mosuñoo gis ku bëggee yonente bi ku raw ni sëñ Tuubaa bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak fa mu ko teg bëgg dëgg nag dafay ànd ak ya sëriñ bi moo roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg tànkam fi yonente bi tegoon tànkam ndax guddi gi lu mu ci wax dafa ne na ngeen ko dundal ci sunna kon lii nga xamante ne moom la def te mooy dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi lépp lislaam daf ko digle amul dara loo xam ne bidaa la si ay nit di toog di fàttali bu seen borom suñu borom moo ko digle joxe ñam suñu borom moo ko digle zikrullah bi ñuy def yi suñu borom moo ko digle salaatu ala nabi sunu borom moo ko digle ndax inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi kon nag yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi yàlla nee na man ak samay malaaka dañuy julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne sunu borom julleem si yonente bi mooy lan julleem si na nga saxal njëggal ak xéwal ak yërmande si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñun jullit bi nga xam ne dañ julli si yonent bi dafay mel ni dafay delluwaat si ñun ndax salaatu ala nabi dafa gaaw si dimbali doomu dafa gaaw si fóot xolu doomu aadama salaatu ala nabi dafa gaaw si eggale nit ki boromam salaatu ala nabi dafay barkeel njaboot salaatu ala nabi dafay ubbi wërsëg salaatu alal nabi dafay musal ki si deewu berteel salaatu alal nabi na koo dimbali ba loo xamante ne xeetu tëlale yàlla suñu borom mi ngi amee si daraja xam ni boo xoolee même xasida Sëriñ yooyu nga xam ni moom la sëriñ bi. def si xasida yi ndax xam na ni li gën a li gën a gaaw foo doomu aadama waaw ndax li gën a gaaw si foo aadama ak maanaam defal ko taw ga mooy salaatu ala nabi di julli si nabi sallallahu alayhi wa ba pare di ko sellal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf leen wax ne leen julli leen si moom yàlla nag lu mu digle nag njariñ yi du ma wax ñam nga xamal nag mooy ñi nga xamante ni dañuy jëfee digal bi moom la suñu borom moom la sunu borom di defal tawfeex ñu daal di xam li nga xamante ni mooy mbóot yi nga xamante ne ñoo nekk ci salaatu ala nabi nga xam ni nit ci jamono ju nekk war naa jël repère ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu war a jëlee repère ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy muy ay jàngat ci dundam mooy mu xool yonente bi daan dundee mu di ko dundee bu ko defee ñu ñëwaat ci waxtaan bi nga xam ni julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk si li nga xamante ni dafay fóot xolu doomu aadama salaatu ala nabi nit ki bu saxoo di ko def suñu borom dafay leeral xolam suñu borom dafay leeral xolam leeral jëmmam ba nit ki lépp loo xamante ni ay ayib la te muy ayibal doomu aadama salaatu ala nabi daf koy dindi si daf koy dindi si moom kon sallu alayhi wa sallimu taslima boobu suñu si nekk te xasida yi comme ni ma ko waxee léegi yi nga xamante moom la si sëriñ bi dëxëñ te dafa xam ni salaatu ala nabi moo gën a gaaw si lépp ndax yàlla boo may dem te jaaroo si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na la leer ni feneen nga àgg waaye àggoo ko suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokki taalib yi ñu fi fekk yépp di leen siyaare ah, di jiital ci siyaar bi sëriñ Ousseynou kan ah, di ko jaarale ci waaw mu xob sëriñ ah, di ko jaarale siyaar bi ci njaboot gi ma fi fekk ak mbooloo meeg taalib yi ñu ma gisee jotaay bi ku ko gis xam ne Serigne Touba liggéeyloo na ko te mu ngi liggéey te la yomb naa xam ndax Serigne Touba kat taalibe yi yépp ay njabootam lañ ba tax na Serigne Touba doom yi mu am ci zahir yi mu am ci baatin na ko ëpp ndax ku mu defar ku ne rek doomi baatinam nga doomi ruuxam nga ndax ci tëjaliyaatam nga bokk kon sëñ Ousseynou bu defee nii du tumuraanke kon defarab sëñ Tuubaa la bu muy liggéeyloo te itam koo gis ah lu bokk ci nit nam mel rek moo lay tegte rek kam jóge wax dëgg yàlla bu ngeen gisee li alquran naan siimahum fi wujuhihim am na ñoo xam tegtal ba lañ ba ñuy am de boo leen nee jàkk rek dëgg leen ñeme maa nga doo baa doo leen ñeme te am na ñooñ kat ku ñeme ku ne am nañ ci yow yaqin te ni ma leen gisee wax dëgg suñ tubaa jekki-jekki ne woon jaas agsi li ngeen def du ngeen soppi dara loolu nag lu mat a bàyyi xel la ci mbir kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax di fasanteeg yónni kóllëre bu baax ah liggéey bi yàlla bu ci seytaane am wàll te du ci am wàll ndax sëñ lépp léppam la yàlla garanti ah bu ko defee rek li ñaan ci barkeb guddi gii ak li ci sëriñ Tubaa wax yàlla defal na ci lu kawe njort te taxawu barab bi taxawu xadra bi taxawu pay bi taxawu leen ci zahir ak ci baatin nii nag ni ko sëñ bii doon waxee euh, ki doon conférence sëñ Abdul Aziz moom itam wax dëgg yàlla ci tomb bi ma fekk mu mu toll ci wax dëgg yàlla lépp dafa dëppook alxuraan moom it yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam ndax diine lislaam kat kenn mënta taxaw ne sama yoon nekku ci képp koo xam ne daal ah am nga dara ci Sëriñ Tuubaa lépp lislaam danga war a sax gëm ne sax sa ala la ndax Sëriñ tubaa day moom bëgg euh, la mu gën a bëgg ci mboolem lu ñuy dénk jàmm ñi di ko wax ñuy dégg mooy jaamu ji leen yàlla te ragal ko te loolu tey ci point boobu laa ko fekk yonent yàlla muhammad tam boo gisee alquran ne wa kullan naqussu alayka minan bàyyi rusul maa nu sabitu fii fuadaka yow muhammad li ñu lay nettali ci yonent yi la ko jàmbale ci la ko tàmbale ci aadama ba ci Isa lépp jubluwuñ ci nettali gi lu dul nga jële ci ñoom positif kon nit bëgg àgg ci yàlla foog moom am ku muy roy te day am kilifa ndax lu yàlla mas a sàkk sàkk na ci kilifa ndax ku ne xam na ne yàlla mënoon naa wax ak yoon ci yàlla muhammad directement te jibril lu ci am lu jaar ci diggante ba waaye texut teewut mu fab ji jibril joxole ko digganteem ak muhammad ba mu wàccegul benn arkaanul ibaadaat itam daf ko ne ittabi millata ibrahim millata abika ibrahim toppal sa mbooroow ibrahim nam daan def def ko kon loolu da ci wane kilifteef gis nga damay faral di wax ne gis nga xorondoom yi sax am nañu kilifa te sëy boo seetee suurt ndëm li ca nga koy xamee xorondoom yépp dañoo génn menn magam xorondoom daal jóg génn def déclaration daal dina yéen xorondoom yi delluwaat dellu leen seeni dëkkuwaay Souleymane a ngi nii di ñëw te ku moytuwul dana la nappaaje ba doo dellu kër ga Seydina Souleymane yàlla da ko xamaloon waxu bàyyi ma yi mu daal di muñ daal di sant yàlla gis nga foofee kilifaa nga fa moo ne commissariat yi nga fi gis ak police yëpp ñu am kilifaay àtt ñu amul kilifa yonent yëpp yonent yàlla moo mën mooy seen kilifa kaaba jàkk yëpp jumaa yooyu seen kilifa jumaa yëpp kaaba ga bi soxloo ja jumaa yëpp ñàkk kon dalay wan ne góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor yi rek noonu mooy noonu la péeb yàlla bi di doxee kon nag sant leen yàlla bi ngeen amee yéen kilifa gu mat kilifa ndax ñi amul ñi matut kilifaa nga fi de ña yàlla nattu ñu ànd ak kilifa gu matut kilifa dañuy ànd këlëng këlëng rek di jëmul fenn yow jëmoo fenn ngeen daan rek di di di di di kënuñ kënuñ te ñoom sax xam nañ ko nag ndax maa kasabat foo maa raa man ngay nax nit ki quelque temps waaye day dem ba xel mi moo koy yee yàllaa ko yee ci xel mi ne ko sa waa ji di xam nga yaa ko topp waaye xam nga ne jëmul fenn waaye koo xay bët bu set ngay gën nga koy gën bëgg ci yàlla ngay am muy gën di ànd ak yow dox ci yàlla di di di la soññ ci yàlla ngeen di ngeen ngeen di bëggante ah kooku xam nga ne am na bis benn sirru bu fa dox bu leen di wétali yéen ñaar jéppi di du am mukk kon nag yàlla leen yàlla taxaw ndax nit moom fu mën a tollit da nga ko ñaan muy tax yàlla taxawu ko rek ndax euh, nu ne manees na nu ne melees na ni ba yàgg nga mel neneen kon bu leen naagu bët bu set di leen làbbali rek Seydina Omar ibnul Xattaab bokkoon na ci fukk yi nga xaye yonent bi jàkkaarloo naa ñoom ñu leen yéen di àjjana ngeen jëm mhm. te taxul mu naa ko toujours danaan da daan dem di jàpp ci pabay pabay pabillon kaaba gi naan neexoon sama yaay bañ ma jur ñu ne ko ah yow looy wax nii yaw boo defee nii ñun lu ñuy wax noonu yow yonent bi jàkkaarloo naa yéen àjjana nga jëm mu ne damaa xamul ci sàtt la ko teg ci xaw ma mooy naa sàtt yam déet kon yàlla nu yàlla dimbali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi